bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil aalamiin laa xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Eh, noo ngi amaat mbégte di teewaat ci jataay bi nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye di jataay boo xamante ne bi jataayub eh, def ngir jëmmi yàlla la muy liggéey bu am solo boo xamante ne bii eh, ay bokk àndandoo nañ fas ko defal. Eh, oustaz Khadim mbay di jàngalekatu xam-xam bu mag dëkk ci dëkk bi te lu ëpp ci doomi dëkk bi jaare ci eh, moom jàng xam-xam waaye lu dut loolu mbooloo mu bari jariñoo xam-xamam ci ay kaset te loolu ku ne xam ne lu ñoroon Serigne Touba la mu jaayante depuis 1975 ba nëgë ni di jàngaleel Serigne bi xam-xam fii ci dëkk bi waaye ku ne xam ne ne ci ay mbaari seng mbaari gi tax ak fu ne jaar na ca loolu nag la bokk yi dem ba xam ne bu fi fekkoon Serigne Touba ñu defal ko daaray xam-xam loolu moo tax Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha jiitu ci liggéey bi yëkkati ab lim. ne danaa ko ànd ak yéen fu mu toll ma ànd ko yéen waaye Serigne Cheikh mbakke mu Serigne Salihu dundam gépp mu jeexal ko moom itam ci lu mel noonu mu yëkkati ab lim def ko ci ak ku mel ne Serigne Moussa Nawel ak lenn ci bokk yi loolu moo tax tey jii ñu teew ci kanam Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xam ne mooy euh, yore kaddug Serigne bi waaye itam nag euh, bokk ci ñi nga xamante ni bi daara jooju war nañ caa def seen loxo moo tax mu fasoon yéene yëkkati ay kaddu ngir laabire ko ñi nga xam ne dañuy liggéey te yàlla rek tax ci dëkk bii di tuba asalaamaaleykum taala wa barakaatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi bokk réew mi yëpp ñu leen di nuyu di leen siyaare bu baax ci leen ndokkeel ci weer wi ñu génn ak weer wi ñu tàbbi di ñaan suñu borom delloosi ko déwén jàmm tañ fekk ko ci fekk ak tal di ñaanal ñëpp rek koor gi suñu borom nangu ko te lim ci diggee wax ne man saama ramadaana imaanan wa ixtisaaban xufira lahu ma taqaddama min dambihi loolu kon doon sëg yàlla ñu ko yàlla defal taqabbal allahu minna siyaamana wa qiyaamana ni ñu koy faral di ñaane di sof kàddu yi rek ci li Serigne Fallou wax ñu jëmee ko ci euh, mbokkum jullit di mbokkum taalibe di sëriñ Xaadim Mbay Longoor nga xam ne xam nañ yitteem mooy toog fii ci dëkku Serigne Touba bi ngir jéem a dundal ndigalu Serigne Touba li xam ne santaandoon na ko ci dëkk bi loolu nag kon yàlla def na ñaar yi kàddu ñett kilifa yi mu ci tudd mun nañoo yóbbaale ñépp wane nañ aw yoon itam nag te ka ci jiitu mooy ki fi nekk Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne boo xasee jëf rek yóbbaale na ñëpp. ku dégg ñu ne sëriñ bi jëf na xam ngeen ne sëriñ bi du jëf ci loo xam ne ñuuru ko waaye du jëf ci loo xam ne du farata waaye ka ca topp di sëriñ Cheikh Mbackeem sëriñ Saliou moo tax ñëpp xam taxawaayam ci lislaam xam taxawaayam ci réew xam na lépp lu muy def rek dana ko segg ba xam li muy jëf lu mu doon kon moom itam jëfam yóbbaale ne ñëpp lu mu jëf rek nit ñi war nañoo xam ne loolu lu mat a jëf la. ka ca desit di seen doom di sëriñ Serigne Moussa Mbacke Serigne Moussa Bassirou moom itam pëstéefam ak taxawaayam ñëpp xam na ne lu Serigne Touba ñuur ko mënta dox ci lu dutu lu ci lañ ko tàggat waaye loolu lay dund dund du Serigne bi xam ngeen ne moom itam lu ko jaral yëkkati àllam def ko ca kon ñoom ñëpp jubluñ ci dara lu may dàkk bëgguk Serigne Touba moom mii nag li tax ñu di ci yëkkati suñu kàddu mooy xam ne. lii nga xam ne ay bokki taalib ak i bokk jullit àndandoo nañ ngir fas yéene ko defee ñëpp la war ndax dafa gàddaay bàyyi léppam bàyyi addunaam toll ci digg adduna bàyyi lépp toog ci dëkku Serigne Touba bii nga xam ne Serigne Touba waxoon na ne ku fa dëkk maa la warul yu bari yoo xam ne limoon na ko xam naa ne siiw na ba jëru dellusiwaat kon jàpp naa ne toogaayam bii ci bàgguteef Serigne Touba la bokk waaye itam ci jëfi ndigalu Serigne Touba ndax sëriñ am sutu jaxate ak kilifa ya ko jëkk ak ya mujj ba leen fee sëriñ bi yebal lam leen sartaloon wax leen bu ngeen ci saxee yii maa leen koy warlu loolu ñëpp xam nañ ko. àggoon na ci boo wax ne eh, suuf wax ne suuf Tuuba day ràmmu nit. nee na li mën ci ku faatu bu ma ko ci defut tam suuf mën na koo def kon ku fi dëkk ta sax fi néew na seen seen àjjana. ajuma ci ajuma ko seenu jàmm yàlla gu néew seen teraanga ajuma ko ci seen mm, sakku wërsëg bu bari te ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ne loolu Sëriñ Tuubaa faggul nañ ne ko ndax am nañ yaqin ci ne ku fi ku fi dëkk boo liggéey da nga tàbbi àjjana waaye ñi fi dund itam kenn ku ci ne xam nga ne sa teraanga Sëriñ ko yorul kon nag ñu ngi ciy soññ bokk teel bi yëpp lépp lu ci waaye man ci jàppale ko ci ci daaram jooju ñu koy bëgg a defaral ak kër googu yi nga xam ne. dañ ko koy defal ngir bëgg mu nekk daara joxoon ne day tàbbi rek ci la Serigne Touba ñaanoon ne waj'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi waj'alhu min zulam lin nuuri wakfi anhu kulla man salam ak mboolem bayit yu bari yi xam ne def na ko ci biir Matlaboul Fawzayni ngir bëgg euh, Touba mel noonu loolu lépp nag moom mi mi ngi jéem a loola kon ku ci jëf rek na nga xam ne sa jëf ji tàbb na ci istajibu lillahi wa li rasuli isa daakum li ma yuhyikum waaye képp ku ci jëf itam na nga xam ne sëriñ Mbàkke bu sa neewoon na bokk na ci yi nga yi ma umpale ñaar bokku ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ci sa ñaq dana joxe barke jox ko sa alal dana doon di wërsëg kon ku ci jëfit nag na nga xam ne jëfoo ko ngir moom mi waaye da nga koy jëf ngir sàkku ngir mu sëriñ Tuubaa te Cheikh Saliou Mbàkke yàlla suñu borom radiyallahu taala anhu waxoon na ne Serigne Touba nee na bokk na ci njëriñ addiya néewul mooy njëriñam kes waaye bokk na ci ay njëriñam dana fekk fu dara mu def mu def fa dara dana fekk fu nekk moo baril ko dana fekk fu fu lu bari nekk mu barkeel ko kon nag lii ngeen koy jëfal rek mi ngi tàbbi ci waq di hawa ijel la si na daamu fii xidmati waxab lahuma ramu yow suñu borom yàlla nga faj aajo yi ñi nga xam ne sax nañ ci dima liggéey te lii muy def nag di gindi eh, njabootu Serigne Touba di di gindi jullit yi loolu bokk na ci liggéey Serigne Touba ndax ku dem ci jësa ushakur danga dégg Serigne Touba di wax ne li tax mu sancoon tubaa mooy li taallum wa taalim kon génn ko kon nañ xam ne moom lii muy def nii eh, liggéey Serigne Touba la kon ñi ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp lu ci man def nga def ko ci te xam ne lu ci waa jëf rek ëllëg suñu borom daan loo ko fay. ku yàlla defal tawféex ba nga ne ci àdduna am xéewalu mën a jëf ci lu baax war nga caa góorgóorlu ngir xam ne loolu mooy la lay jëriñ ëllëg te képp koo xam ne faatu nga sa jëf dog na ndurul jëf yu mel nii nga xam ne bàyyi nga ko fi mu lay jëriñ boo liggéey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu